فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki euh, internautes yi ñuy seetaan fu ngeen mënti nekk ci biir réew mi di Sénégal wala ci bitim réew nuyu nañ leen ziar leen ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides mu yàgg fi loolu te ànd mbokk yi tey aljuma dëppook le 10 décembre 2021 ñu ngi fii ci Touba ci buntu kër soxna maam aw Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal mu image yi nga xam ne moo ngi gis suñ ginnaaw sababu ñëw fi moo di waajal dem ca tool yi Daaru Salaam Bokki Barga Daaru Salaam Bokki Barga bu ñu ko waxee suñ xel yëpp dañu dem ci Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdou Lahad di tool yoo xam ne at mu jot da koy bay dafa bay li nga xam ne moom moo di dugub waaye dafa bay li nga xam ne moom moo di eh, gerte waaye li nga xam ne moom moo di tool yi gerte yooyu dañoo toll ci li nga xam ne moom moo jëm ci mbàcc mi jëre gi bees gi ak euh, li jëm ci roñum ngooñ bi loolu nag moom la ñuy waajal fii ci kër soxna maam Awa Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal Mbacke moom Xaadim Rasoul ku ne xam na ne ki nga xam ne moom moo di jëwrinam di sëriñ Amsatu Mbacke moom Cheikh Abdou moom la sëriñ Sidi teg liggéey bi ci loxoom at mu jot nag moom soxna maam Awa mu ci def liggéey bu am solo ànd mbooleem mboolem taalibe yi soppe yi ak wëlëre yi jël mbooleem matuwaay yi ak lépp loo xam ne war na dem ca tool ya ñu waajal ko àndandoo dem fas yéene toog ca tool ya nekkandoo fa ak taalibe yi àndandoo ñoom ba keroog liggéey bi di àgg moom soxna maam Awa di ci taxaw taxawaay bu am solo rawatina jëm ci li nga xam ne moom moo di waañ wi ndax berne yi nga xam ne moom moo jëm ci euh, taalibe yi ñoom dañ koy waajal bu baax baax ci bërëb boobu boobule dañuy def nag berne yu am solo yoo xamante nii lu ne daañu ko waajal taalibe yi ngir ñëw jox ko ñi nga xam ne ñoom sonn ci tool yooyu nga xam ne moom la Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad ñu koy ñaanalaat mu yàgg fi loolu tànd ak wér woote muy Daaru Salaam Boki Barga mbokk yi soxna maam Awa Mbacke ak taalibe yi ni nga xam ne noonu la ñuy waajalee fii ci këram yi nga xam ne ñu fas yéene euh, dugg rek taataan ay kaddu ci jëwrin yi ak ay kaddu yu yoo xam ne dana jëm ci liggéey bu am solo bi nga xam ne soxna maam Awa mu ngi koy amal ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba waaye ci taalibe yi waaye ci ni nga xam ne moom moo di jullit yëpp kon mbokk yi ñu àndaloo dugg ci biir kër gi fajaani bima bihi fajaana باقي مميت والبقاء جانا قولي قول يحجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القحار من لبانا كوني لحو حمدي بما استبانا الحمد لله الذي أحتانا الحلم والحمل والأوطان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته jëriñ maa ngi leen di siyaar di leen jégalu te di leen balaax ni santaat yàlla bu baax a baax a baax ci fi ngeen ñu fekk muy kër soxna Maam Mbacke moom Serigne Fallou ñu nekk ci wàccaayu dem toole Daaru Salaam Burki Barga ñun nag wàccaay wi comme ni ngeen ko gisee rek ñi bañ xëyee ba ndigal li tàbbee ba nëga ñu ngi ci wàccaay wi waaye nag tey ji dañoo nekk ci cëppaa ndaw la mooy pour fas yéene dajale xéewali ak mbooloo mi pour dem ci tool ya wàccaa wi nag mooy comme ni ko sëñ bu bëggee rek lépp lu nga xam ne moo jëm ci wàllu matériel bi ñuy liggéeyee fàggu nañ ko waaye lépp li nga xam te moo jëm ci xéewal yi lépp rek xeet bu nekk nag ak façon bernde bu nekk fas yéene nañ ko faa def ngir taxawaaye ko ci liggéey bi ngir jàppale ko mbokk taalibe ak mbokk julli ju fay ñëw ngir jëmmi sëriñ bi loolu nag la ñu ku baax ki digal ci lañ nekk depuis ba ndigal li tàbbee ba léegi ci lañ nekk ak jëwriñ yi euh, xam naa ne yéen jëwriñ ñi ngi ci yoon muy jëwriñ daara ji di sëriñ Badara lay moom laa fi représenté waaye ñoom ñëpp ñi ngi ci yoon bi di ñëw xam naa daal foofu lañ tool ci liggéey bi gis ngeen comme ni ngeen ko gisee lépp li nga xam ne daal moo war ci ay tool ci wàllu matériel bu ñuy liggéey waaye tamit ci wàllu xéewal yi ñu jox donga ya fa nekk ak mbokk taalibe ya fay ñëw ngir sëriñ bi ñu ngi ciy def suñu kéemtalaay kàttan te fas yéene nañ koo taxawee taxawaay boo xam ni dana rafet lool te kenn ki nekk da nga ci gis sa bopp di sàkku yi ni tasee ngërëmal sëriñ bi loolu daal lañ ko fa yéenee di waajal te ñaan yàlla te suñ borom dimbali ñu bañ àggale ci àggale ko ci jàmm ci barki Cheikhul Khadim te buñ ko àggalee yàlla nañ tasee ngërëmal sëriñ tubaa te ànd kook suñu yaakaar yi muy soxna Maama Mbacke moom sëriñ Fallou moom tamit mu ànd kook kilifaam muy sëriñ Amsatu moom sëriñ Abdoul Ahad di ko yàggal liggéeyal sëriñ Sidi di ko yàggal liggéeyal sëriñ Sidi ay at yu bare bare bare bare te lépp ànd ak jàmm ak xéewal ak sutura ci barki Cheikhul Khadim قولي قول يحجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القحار من لبانا كوني لحو حمدي بما استبانا الحمد لله الذي أحتانا الحلم والحمل والأوطانا له سكري وكفى الشيطان كفاية الباقين ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñoo ngi leen di nuy yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaan sama borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te ànd ko wér bu ko defee di ci teg ki nga xamante ni moom moo tax ñu nekk ci wàccaay wi tey di Serigne Amsatou mu Cheikh Abdoulaye Lahat di jëwrin tamit ci soxna Maama Mbacke mii nga xamante ni moom la ñu àndal ngir fas yéene dem tool yi nga xamante ni moom la ñuy wax bukki barga mu nag tool yoo xamante ni tool yu yaatoo yaatu yoo xamante ni daa am ay xeetu liggéey yoo xamante ni dañ ko faa jox soxna si mu ko fay taxawee léegi nag ci biir wàccaay bi comme ni nga xamante ni moom la jëwriñ Moodu waxee rek daanaka wàccaay bi daal lépp loo xalaat loo xamante ni daal lu war a jëm ci tool la daanaka maanaam jekk nañ ci ndax boo ñu seetloo sama ginnaaw nii gis na nag bi nga xamante ni moom laa moo neen sama ginnaaw nii daanaka daa bokk ci wàccaay yi ak yeneen yoo xamante ni yoo xamante ni yoo xamante ni daal danañ ko yittewoo lool lool ci ci tool ya nag ci biir loolu it da ngay gis ne liggéey bi dañ ko ànd ak mbooleem ñi nga xamante ni dañoo nekk fii ci Sénégal ak ñi nga xamante ni dañoo nekk bitim réew mbir mi nag bañ ko tàmbalee wàcc yàgg na ndax léegi boo xoolee soxna si bañ na ba euh, tool yi da ko boole léegi ci biir programme bi comme ni nga xamante ni noonu la noonu lañu amee programme ci biirub liggéey bi moo xam Kazu Rajab màggalu Touba wala màggal Serigne Abdou Lahad léegi dañoo boolewaale tool yi nga xamante ni moom la Serigne Sidi mu Cheikh Abdou Lahad woote te teg loxo teg liggéey bi ci ci loxo soxna am sax daanaka loolu tax na ñu jël nit mm, ci biirub liggéey bi bilan boo xamante ni dañ ko jagleel uniquement tool waaye nag tawféex la ci kii nga xamante ni moom la ñu àndal muy soxna Maawa ndax ku seetlu ne mën nañ ne ñun ñi nga xamante ni ñoo doon ay taalibeem moom coono yi nga xamante ni daj na ko ci ci ci wàccaay tool yi ñun sax daanaka demeewuñ noonu yëkkati na alalam ak mbooleem loo xamante ni xalaat nga ko rek ci lu baax rek loo xamante ni mbokki taalibe yi dinañ ko mën a jëfandikoo ca toole rek ñu nga ca kon kon ku baax ki xam naa ne loolu daal lu ñuy wax ci ci kaw tënk daanaka mën nañ ne ci wàccaay googu lañ nekk nii fas yéene ñaan sunu borom nag ñu dem ci jàmm ak salaam te dellu ci jàmm ak salaam te lépp loo xamante ni jëlee nañ ko fa moo xam yiw la wala xam lu mu mën a doon sunu borom wasaare ko ci àddina bi yëpp te ñu dëcc ak tawfeexu sëriñ bi ak numéro sëriñ bi. loolu de ku baax xam nañ ne loolu moom danañ ci am kontante goo xamante ni jéggi na dayoo ndax. soxna Maamu Mbàkke yaakaar naa boo ko xasee ba xam danga gis ne wute nag ñu baree baree baree bari ndax sang la goo xamante ni tey jii misaal bi ma lay mën a jox rek mooy kër gi tey boo fi ñëwoon comme yeneen kër yi ni nga xamante ni jafe-jafe ci kilifa ngir nga mën koo teg bët yaakaar naa loolu moom dalu ko te yëg gi nga xamante ni yëg na ko doomu aadama loolu moom leneen la ndax ñun ñii nga xamante ni ay taalibeem lañ amut kenn ci ñun koo xamante ni xawle nga dara wala lu mu mënti doon te jëlu maanaam jëmmam ji maanaam fekk la fekk la fa ba fa nga ne ànd ak yow mbooleem loo xamante ni maanaam da nga koo da nga koo xewle moo xam bànneex la moo xam lu mu mënti doon te it ci biirub loolu it liggéey bii nga xamante ni dañ ko ànd ak moom dañu koo gën a bëgg ndax wootewul woon ne ab sang la bu ko neexoon toog bàyyi mbokki taalibe yi di def yenn yi waaye dangay gis ne daa da cee ànd mboolem ni ñuy tàmbali yëpp ba ni ñu koy jeexalee te loolu jafe na ci ab sang waaye ku xam ne Sëriñ Fàllu bu doonee sa waajur rawatina Sëriñ Fàllu ñu gën koo xam ci ci ci ci ci ci Baay Faal loolu yaakaar naa njabootam dañ koy donn ci loolee taxawaay boobee nag la soxna si am maanaam ci biir liggéey bii kon nag dañuy gën a ñaan sunu borom gën ko fee bàyyi mu yàgg fi lool ca ànd ak wér ba lépp loo xamante ni yéene na ko liggéeyal sama borom defal ko ci maanaam lu kaweeg njor yaakaar naa daal kàddu yooyu moom metti woon na sax ngir ñu wax lu baree baree bari ndax liñ ci xam bari na lool waaye kéemaan la daal kéemaan la daal waaw sant nañ nag bu baax a baax a baax gërëm nañ leen it yéen it yéen ñi nga xamante ni saa su ne gis nañ ne heure boo xamante ni soxna si xew leneen dara moo xam lu mu mënti doon da ngeen ko taxawu ci xeetu média yi yéen it dañu ñaan gën sama borom fépp foo leen xamante ni bëgg ngeen fa maanaam liggéey bi it yegg fa sa borom leen ko barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf ndax soxna maam Awa ñun ñu ngi tudd Aly Kayré dëkk Taïba Mbaye ñu ngi bàyyi ko ba ginnaaw tuyaawoon mais li waral lii soxna si moo am ci ñun yëg-yëg boo xam ne fii dafa kaw a njort ci ñun ndax au lieu que ñuy ñëw di seet si tey déplacé fii ñëw ba foofa te du benn du ñaar comme ça mooy li waa ji wax rek ci maanaam oyof gum oyofal bi mu dalee ci koom danoo woo téléphone lépp luñ jàppoon ñu bàyyi ko def délégation ngir ñëw ngir maam Awa ngir xëtte bi mu am ci ñun ba ba naka ñu ak si bi day jokkoo ak ñun naab fu ngeen toll loolu nag dañ ci sant bu baax a baax di ci am mbégte te ñaan yàlla mi nga xam ni mooy borom kattan mu kattanal ko dooleel ko ba lépp loo xam ne fi liggéey na ko bëgg na ko ci liggéey borom Touba rek mu am ko wallaay isim ndax ñun ñu ngi jokk Daaru Xudoos ci mais nag am na cofeel ci ñun ak yëg-yëg googu yoo xam te ni ñun mënu koo fay moom soxna maam Awa te xamal ko ñu ko bokk tey ba ak tun tey ba yëpp ñu koy sant te di ko ñaan te ñaan yàlla bis bu ñu ko fekkaatee ñu gën koo waajal bu baax dem mbégte am kontaan bu baax. Hmm, sëñ bu sa jaw laa tudd wàccaay yu ñuy yëm ci tool yi daal ah, dañuy ñaan suñu borom yóbbu ñu ci jàmm dellu suñu jàmm ci barke sëñ fal ndax ah, soxna maam Awa mi moo ñu tax ñuy dem. te moom itam sëriñam a tax muy dem muy sëñ am Amsa muy taalibe te taalibe gi moom ca fa ko jëlee ci sëñ Fallou la ko jëlee di ko roy ñun ñu ay taalibe ci ay taalibe ci biir kër gi soxna maa aw moom lu mu nekk ñu nekk ci te lu mu nekk dañuy bëgg mu am ca ndam yàlla defal ko ca ndam waaw moog sëriñam bi yàlla yàggal leen ak yàggal taalibe yi. fee ñu jëm nag pëstee fa ñu fay yóbbu lañ fay wuti lépp yàlla nañ ko am lii may wax nag ci kàddu soxna ma aw laa koy laa koy waaye nag man damaa matul te mënumaa wax ndax moo ma jox ndigal ne ma naa ne man nag damaa tàggatuwut ci wax waaye daal euh, ñun daal nga xam ne ñoo ngi ànd ak sëñ Amsa na ñi nga xamal am sa ne ko lépp lu soxna maam awa nekk nekk nañ ci te lépp lu nekk soxna maam awa nekk na so euh, ñoom ñoo bokk sëñ Touba ñi ngi ñaan ci barke sëñ Touba yàlla yàgg gën leen yàggal ñu dem ba màggal te ba defal leen ndam lu kawe seen jot ci barke sëñ Touba te yaakaar nañ ne buñ ko ñaanee nag dana dana am ndax fañ koy teg ci barke diggante sëñ Fallou ak sëñ Abdou Lahat ci lañ koy teg. kon nag moo tax ñuy ñaan daal bëgg a dem ci jàmm dikk ci jàmm di ko ñaanal jàmm lépp luñ fa liggéey it yàlla luñ yëpp taalib yi fas rek yàlla nañ ko am lu kawe seen njort ñi dem ak ñi yéenee dem ak ñi bëgg dem te mënuñoo dem ak ñëpp itam rek euh, mbir ma fekk leen fa yéen itam nga xamante ne bi yéen a ñëw di jël lii yàlla defal leen lu kawe seen njort yéen a xam li ngeen bëgg yàlla nañ ko yàlla defal ci barke Sëñ Tuubaa barke Cheikh Moudal Fadal barke Cheikh Abdoulaye jërëjëf ak barke Soxna Maa Awa Caat jërëjëf به كفان الله من لم يعبدا سلامة الذي يدود بالحليم وبالنبي بي من المنفعلين شكرت من لي لا يوجئ الكدر في أبد وقاد لي بسر القدر شكرت من لي لا يوجئ الكدر في أبد وقاد لي بسر القدر لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا علي من ببقاء وصحاح وقادني كتابه مع صحاح لوجهه الكريم ذحذح الكدر إلى سواي وصفاني القدر لم ينحني در ولا أدناس وليس ينحو جئة القناس كتاب ذي الجلال والإكرام قالتني وقادني مرامي مد لي القل غنى عن غيره وكان لي الحب بأعلى خيره ترسي عن الغدب والضلال رضا العليم الباسط الحلال fadaxtu sayyidal wara bi qatti wa innahu li rida zumati lam yaxfa kawnu hadihi alqasida haqiqatan tu'ti alfata maqsuda hawat manafi as-sinina wa shuhur khalisatan li wajhi malik duhur